salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu maa ngi tudd Mame Birane Mbengue di coordonnateur bu collectif des jeune de Tank bu Ngor Wakaam ak Yoff ànd ak samay naataango ñu ñëw def point de presse pour jàkkaarloo ak yéen ngir mën a wax ak yéen si problème mu aéroport Dakar bii nga xam ne moom moo fi nekk nga xam ne problème yi fi am yépp Macky Sall moo ñu ko teg président te dekkiwaat si jamono yi nga xam ne équipe bu bi dañu jël coupe bi bi ñu jëlee coupe bi ñëw mu jox leen terrain bu 200 mètres carrés kenn ku si nekk si suuf aéroport bi nga xam ne jàpp nañ ne état du Sénégal moomu ko waaye ñun lébu yi ñun ñoo ko maam suñuy maam ñun la ko fi bàyyiloon ginnaaw ba ñoo ko moom te réquisition moo taxoon ñu jël ko pour fait de guerre kon war nañ ko mën a delloo bu fekkante ne condition boobu noonu nekkatu fi président de la république nag li mu def mooy jël terrain bu 200 mètres carrés jox ko Lions yi bi ñu jëlee coupe bi si suñu suufu maam moom dañuy wax ne bu fekkente ne day maye na maye lu mu moom président de la république Macky sàll bu fekkente ne day maye na maye lu mu moom mais bu mu fekk suuf soo xam ne li yaa ngi koy laaj mu leer nàññ ne seen maam ñoo ko moom mu jël ko di si récompenser ay lion lion yi nag amuñu dara lu ñu leen wax ndax masuñoo laaj li nga xam ne nag moo tax ñuy gën a laaj suuf si mooy gën a jige gën a yay ko koo dagg Sénégal ku nekk mu jox ñu si ñun ñu soxla fu ñu yokkee suñuy village yokk ay équipement yu ñu war a def ay école ak lépp loo xam ne commune war na ko mën a am si suufam mu jël ko di ko daggat di maye nu mu ko neexee. te njëkkiwu ko tey ndax defoon na ko fi 2015 si Lyon yi nga xam ne ñoo jëloon coupe bi si basket bi foofu nag ñu ngi wax ne ñii nga xam ne ñooy footballeurs yi ak staff bi surtout footballeurs yi. dañu war a am grandeur maanaam dañu war a am mat goo xam ne terrain yooyu ñu leen jox yu 200 mètres carrés ci Dakar ñu delloo ko ndànk ndax koo xam ne dina mën a am ci lu ko yàlla di wërsëgale 100 millions par semaine doyewul dara terrain boo xam ne 80 million lay jar wala gis na ñu ko gën a soxla surtout mu nekk suuf soo xam ne fa ñu ko dagg jox leen ko coow yi la nit ñaa ngi koy laaj kon ñu ngi ñaan gayndey Sénégal yi suuf soo suñu xam ne moom lañ jël ñu am mat gu ñu ko delloo te xam ne état daf leen ko jox te ñun njort nañu ne groupe nit bi nekk ci staff bi ak ñenn ci gouvernement bi ñoom ñoo mbubboo gaynde yi pour mën a jël suuf soosu ndax la ñu fa jël ci ay terrain lomb na nombre de joueurs staff bi kenn xamul ñaata la ba nëgëni kon nag loolu la ñuy ñaan gaynde yi ba pare fi mu nekk ñu ngi leen di wax ne ñun ndawi tànk ngor wakaam yoo nañ boole suñuy doole ànd fas yéene jàmmarlooti ak état comme nañu ko daan defe taxaw tey ne la woon wonni na la fi doon am dootu fi amati te lépp loo xam ne moom la laaj nañu ko def moyen d'expression yu mu laaj muy manifestation loo xam ne lu légal la lu ñu constitution may ak yoon dinañu ko def ba keroog ñuy taxaw wax ak ñun ci aéroport bi balaa ñu koy dagg muy jeex te ñun ñi ñu yayoo ko gën leen ko yittewoo foofu du ñu mas a bàyyi xeex bi nag nañu ci nekke woon démb nekk ci tey noonu lañ ciy nekke ëllëg ba keroog yàlla di ñu may ndam bu soobee yàlla président Macky sàll fu mu bëgg dinañu fa àgg ak moom ñu ko daan defek Ablaye Wade mi nga xam ne suuf si lu ñu ci metti moo ñu ko teg mu tàmbaleek ñu ci moom kii fi ñëw ci ay tànkam kese la jaar ñu ngi leen di gërëm di leen sant